jërë ngeen jëf mbokk yi ñuy bàyyi xel ñu ngi fii ci Touba ci fu soriwul dara fi nga xam ne moo di arrêt Bara Cissé xam ngeen ne xew-xew bi nga xam ne xew na ci yoonu Poroxaan mu nekk xew bu tiis lool rawatina ci kartie bi nga xamante ni xew-xew bi ñi nga xamante ni ñoo ci loru fi lañu dëkk tey ñu ngi ci lenn ci kër yi nga xamante ni am na ñoo xamante ni euh, jot nañoo loru ci accident bi nga xamante ni fan yëpp ñu ko doon dégg. mujjee kenn ci borom kër yi ñi nga xamante ni ñoo fi bàyyeekoo sëñ bi ñoo ngi lay nuyu. waaw jërëjëf maa ngi leen di fay bu baax a baax. xew-xew bi metti na lool ndax mën nga ñu dikkalaat ci xew-xew bi nga ko yëgee ak naka nga ko yëgee. waaw xew-xew bi de moom ni ma ko yëgee mooy man demoon naa Poroxaan trois heures nangam laa ñibbisi bi ma ñibbisee dama tëdd tuuti rek sama doom bu jigéen ñu oo ko téléphone. mu ñëw yee ma ne ma sama yaay ñoom dañoo def sog bi ma waxee loolu itam damaa dal di jóg ah am ñoo xam ne ci koñ bi lañ dëkk ma dal di ànd ak ñoom dem Kaolack bi ñuy dem Kaolack it wax yàlla romb nañ oto waaye oto bi koo gis ñu ne la doomu aadama na ci doo ko mën a gëm wax dëgg yàlla man demee Kaolack it wax dëgg yàlla falal ni yendu ah ci wàllu génn néew yi waaw wax dëgg yàlla sëñ Mountakha Mbacké mi xalifa général des mourides jàpp na ci lool soxna Isa Mbacké nag moom ka ñuy wax jawrin Abdul Ahad Jéey moom daanaka lépp moo ko yoroon ba bañ andi néew yu Tuuba fekk na nag man wax dëgg yàlla boobu sama benn soxna moo faatu keneen ki nekk hôpital urgence la nekkoon itam ginnaaw si nag bi ma ñëwee ba Tuuba ma nga xam ne accident naa booru vingt et une heures lañ ma xamal ne moom itam noppalu na wax la demee wax. kon sa ñaari soxna moo ci dem. waaw man sama ñaari soxna ñoo ci dem mhm. ku ñuy wax Fatou ture ak Sagar Dia waaw message bi may lancé mooy. Euh, xam ne daal gouvernement bi ministre des transport war naa xoolaat nan lañu war a mën a doxalewaat ba yuy soppiku ndax ay gone dong la ñuy jox oto yi te gone yi am na ci ñoo xam ne yaruwuñ wax dëgg yàlla moo ci ëpp ndax man guddi gi ma jógee Poroxaan di ñëw biis bi ma duggoon ay misigam la teg damaa wax ba sonn bi ñëwee ba wóoróor ci benn doodaan la dal oto bi dali fële nga xam ne oto bi bi am nañ fa une heure de temps et mu door a réparé indi ma bi ñu ñëwee jumaa ja waxoon bi ñu ñëwee ba rond point Mbàkke fa wàcc kenn ku ne da ngaa jëla taxi dem si kër ñibbi loolu yëpp yëf yi reewante dong la du leen wax dëgg yàlla man loolu laa gis waaw. soxna yi ndax jot nañ bàyyi ay bant wala. soxna yi kenn ki ku mag ki bàyyi na fi ñetti bant waaye suñu borom dogal na yu jigéen lañ waaw keneen kii tam benn bant lañ am wax dëgg yàlla mu ngi fi. bi xibaar bi ci waaw ni ma ko dundee carrément mooy mooy sant yàlla sant yonent bi sant sëñ Tuubaa ndax yàlla bu defee benn mu naqare la bu ko neexoon def fukk waaw ndax lii bu ko neexoon mën naa raw lii ndax man sama waa kër ñëpp cooto oto bi lañ daan dugg suñu borom logal na ren ñett ñoo ci duggoon ñaar ñaa kenn kaa ngi fi kenn ki sama dooma mu ngi nii toog ci kaw lal bi wax dëgg yàlla kon dama koy sant yàlla ndax bu ko neexoon mu boole ko ci su ko neexoon dem ñi daan dem ñëpp bu ñu demoon mu boole leen ci te defu ko kon sant naa yàlla sant yonent bi sant sëñ waa xam ne it suñu boroom lii ko neex wax dëgg yàlla. ko xam li ngay dund nekk na lu metti tey ban message itam ngay laasewaat ci kilifa yi ñu gën a mën a bàyyi xel euh, ñi nga xam ne ñoo fi bàyyeekoo. maanaam ñu bàyyi xel maanaam loolu itam wax dëgg yàlla mooy ni ma la waxoon nii rek ah wax dëgg yàlla daal transport bi daal man wax dëgg yàlla gis naa ne wax dëgg yàlla doxalin yi daal man xeeb naa ko. waaw ndax oto yi daal war nañoo xalaat di jox koo xam ne dafa yore responsabilité di ko jox oto yi su ko dañuy jox ak doom client yi yoon wi itam danañ ci dox niñ ci war a doxee bu ko defee bari na yoo xam ni bu moytu dee am suñu borom mën naa def jàmm ku moytu ñaari suñu borom musal la waaw fii itam boobu loolu laa ciy wax wax dëgg yàlla. yan kàddu témoignage nga ñu mën a andi ci sa ñaari soxna sama ñaari soxna yi ñu déggoo woon lañ man suñu borom dimbale woon na ma ci ñu déggoo woon lañ. waaw am na ci yoo xam ne sax duma ci àgg ci wàllu wax ndax du ko jar waaye suñu borom dimbali na ñu déggoole moom lañ doonoon waaw ñoo xam ni it lu baax rek lañ bëggoon ñoo xam ni it ay jàmbaar lañ woon waaw yàlla seere na lii may wax it yàlla rek a tax ma di ko wax wax dëgg yàlla waaw waaw ñu ma fonkoon ñu ma bëggoon lañ waaw ndax ku mag ki de dafa mën a am na bis ñuy waxtaan mu ne moom bu sañoon dama koy mujj àdduna di ko ñaanal. kon suñu boroom def na loolu tey li may ñaan daal suñu borom suñu boroom xare leen àjjana te it am naa ci yaakaar lool lool ndax bu dara it ñaan yeeg waxi sëñ Muntaxa ak liñ joxe woon rek mën na leen yóbbu fu ne waaw ah, man moom duma dara munuma dara xawma dara awuma dara sañuma dara waaye nag yàllaa yonteeg sëñ Tuubaa laay ñaan mu jéggal leen seen coono daal maa ngi ñaan yàlla yonteeg sëñ Tuubaa na yem fii ci àdduna barke Cheikhul Xadim barke Maam Cheikh Ibrahima Fall barke sëñ Cheikh Mbàkke moom sëñ Abdou Hakim mii sama sëriñ waaw jërë ngeen jëf moom sëriñ sama sëriñ taxaw na ci taxawaay boo xam ne bii sax foogu moon na naa ko ci taxaw wax dëgg yàlla yàlla seere na ko